ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala si biti réew da ngeen a jot moo ne dugal a xam li nga xam ne moom amri huwa ahwanu ala al-mu'min min am na jaam yoo xam ne yu ñuy wax yépp li muy tiis li muy yàgg li muy metti lépp julli ñaar rakka wala ñeenti rakka ko gën ñoom yàlla na suñu boole. alquran nee na laa yamlikuuna shafaata illa man izina lahu arrahmanu wa radiya lahu qawlan bu keroogee muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu mag moomu nga xam ne mooy lan mooy wax ci suñu borom ba mu ñëw àtte jaam ñi ñu seet seeni jëf ñi jëm fii jëm fa ñi jëm fii jëm daan wax mbiru yonent bi bu weesoo fii tuuti yii yëpp lu tiis la kenn mënu ko bañ wax ndax mooy dëgg bu buñ ko seetee yàlla bi mu ne xaafiri zanbi wa qaabili tawbi dafa ne shadidil iqaabi di tawli ku lay wax lu neex rek te du la wax lu naqari mukk waxu la dëgg kooka laa biirewu la ku lay wax lu la naqar rek te waxu dara ne lu neex am na itam wàcc na dëgg gi lu neex dafa am lu naqari am lu ci nekk am nañu ko tax a jóg waaye man yaakaar naa ne nit ki njëriñam mu ngi ci mu xam ne yàlla indiw ko fi ngir fo te mbiram yépp lañuy ñuy topp te daraam réerul suñu borom te ëllëg ci biir dana ko àtte ci ak maandoom wala ci yërmandeem jullit bi war na xalaat xisaab xisaab mooy lan maanaam règlement de compte la ñu seet nag jëfam daañu ko xisaab ci lu néewam ak lu bareem naqira qitmiir moo fi moo fi nekk di ko firi daañu ko seet bu keroogee ay malaayika daañu wàcc ci goxi asamaan ñoo xam ne nañu bindoo na la ko yàlla nëbb malaayika yu tal yoo xam ne ndigal suñu borom rek la ñuy déglu lañu dañuy ñëw jël si ñi texee di tooñkat yi ñu ngi jàpp ci seen i càmbarga boole kook seen baaraam yi tànk wëndeel leen di leen diri jëmee ca béréb ba ndax ñooñu mooy ñu nga xam ne mënuñu woon a agsi ndax mënuñoo jéggi siraat amuñu lu ñu war ci aw yiw ba àgg ci bërëb ba ñuy àttee noonu leen malaayika yi jëlsee malaayka yi ñoom ci seen bopp ñoo gën a tiit ndax ragal yàlla ak mer ma mu mer bisub keroog ak tiisu bis ba waxtu malaayka yooyu di wàcc du bu yonent du bu waliyu du siddiq du saalix lu dul ku leen na jàkk rek ne dal la si suuf këpp këpp sa kanam ndax raglu da nga gis gaañu tiit ba bi ñu ne jàkk si ñooñu dal ne suñu borom a ngi si ñii bu ko defee suñu borom a ngi si ñii ñë mu jëm wax jëmale leen ñooñu daañu tiit ñoom malaayka yi ba duñu xamante lu ñu def bu ko defee daañu sabba sellug yàlla ndax tudd googu ñu leen tudd ñoom tudd ko subhanahu laysa fina walakinahu atin seeda nañu sellug borom le nekkul ci nun waaye mu ngi ñëw alquran nee na fa la nasalanna alladina ursila ilayhim wala nasalanna almursalina daanu laaj bu keroogee gaa yi nga xam ne yónni woon naa yonent yi ci ñoom danaan laaj it ñi ma yónni woon muy yonent yooyu le fa yaqulu maza ujibtum yonent yi lay njëkk a laaj nee ñu la bukki tooñee nga jëllu dóor gaynde bukki dana xam ne xel moom xam na wàllam ci tànku nag wa bu keroogee yonent yooyu seeni xel dana réer seeni fitnaaw lépp lu ñu xamoon dana far seeni xol lu ñuy wax laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimul hakim xamuñu dara dara dara dara lu dul li nga nu xabal yow rek yaa xam innaka anta allamul xuyubi sidna nuux alayhi xam ngeen ne maanaam daal mooy duwaayu yonent yi moom la suñu borom di njëkk a laaj nooxin yow ndax ñi ma la yónni woon la la wax woon ci ñoom jotal nga leen ko mu ne waaw waaw mu daal laaj xeet nooxin wa ndax nooxin jotal na leen sama yonent bi ñu daal ne déedéet nun kaay nag sunu borom tabaraka wa taala daal ne xulli yonte yàlla Isa lu mu ko laajee Isa tiit taxaw ay at mënula tontu ba yéen ma de sunu borom dabaatal ko bu ñu ko nee anta qulta linnaasi ittaxizuuni wa ummiya ilaahayni min duuni llahi qaala subhaanaka ma yakunu ana qawla maa laysa li bi haqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu taalamu maa fi nafsi wala alamu maa fi nafsika innaka anta allaamul ghuyuub maa qultu lahum illaa maa amartani bihi an ubudu llaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahiidan maa dumtu fiihim falammaa tawaffaytanii kunta anta raqiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahiid duggagul woon ci mbirum tasawuf bi noo ngi woon ci li jullit war di baaxel fu mu toll ndax loolu mën koo yar mën ko jox melaw jullit mën a setal xolam man tax mu mel ni koy taxa a mucc ëllëg gannaaw coobareel yàlla ñëwoon léegi balaa suñ boroom rabbul izzati jalla jalaaluhu balaa tàmbali laajte ba keroog leeruk ars dana fekk ci kaw suuf si ba bépp jaam wóolu ne al azizul jabbaar mu ngi ñëw la di laaj jaam ñi bu agsee keroog bu mu nee yaa jibrilu itini bi naari yow jibril indil ma safara sidna jibril dem ci safara ne ko wuyul ki bind wuyul ki moom ak noonu muy deme lépp ni muy raglu kàttan gi muy am ñépp xam ne dañuy wax ne juróom-ñaar fukki junni malaayika koy déndoo ci ay càll la dana tiit tiit moo xam ne moom ci boppam fekkoon na ko mu nekk ci mer mere ñi nga xam ne ñoo tooñ yàlla ngir bëgg a sooy boppam mu ajjat ajjat goo xam ne dana dugg ci xolu képp ku teewoon mu agsi ak xasana yi nga xam ne ñoo nekk ca moom di liggéey doomu aadama yépp defeenu ngir njàqare mu seeni bët bi ma ne suñu boroom laajee laaj ko mi ngi koy tàmbalee ci yonante yi ndax mott li ngeen li ma leen joxoon maanaam mission bi ma leen joxoon ndax accomplir ngeen ko ci kanamu jaam ñi waajur dana daw doomam ku seen sa mbokk daw ndax xalaat ne ameeloon nga ko adduna ji ngeen bokkoon ne ak joo xam ne dana la ko topp di la ko laaj te doo loo ko fee ku seen sa jabar daw ku seen sa jëkkër daw kenn ku nekk am nga lu la doy ñu tàmbali leen nag di leen laaj li do li mbindee fii bari lépp suñu borom dana leen dana leen régler ci genn wàllu bëccëg te kenn ku ne dana la laaj dana laaj lu néew ak lu tuuti lu nëbbu ak lu feeñ dana laaj tam mboolem cër yépp sallallahu taala alayhi wa sallam nee na bu keroogee jaam bi dana dajeeg boromam mu ne ko ndax teralu ma la woon waaye ci àdduna mu ne ah ndax def mu la woon kaw gën leen mu ne ah kay ndax joxuma la li nga aajo woo lépp ci àdduna nga ne ah ndax tàggalu tàggatuma la woon ay mala nga di leen war di leen rey di lekk di leen jëfandikoo naa kay mu ne ko waaw ndax jàppoon nga ne tey jii da nga man daje bii mu ne déedéet mu ne kon nag na ma fàtte woon démb dinaa la ko fàttee tey ci sama safara wi fàttalikul bis boobu nga xam ne malaayika daan jàpp ci sa mbagg mi diri la ba ci kanam yàlla rabbul izzati azza wa jalla mu dee dina laaj ndax xéewalu ma la woon ngay ndaw am kàttan amug wér ak mucc sa yaram woowu ci lan nga ko rappelé ndax mayu mu la woon dund gu gudd ngay dund di wéy ci lan nga jeexal dund googu ndax wërsëgu ma la ma woon alal alal jooju nan nga ko fàggoon ba mu dugg sa loxo ci lan nga ko dépensé ci lan nga ko itam maanaam euh, jëfandikoo ba mu jeex ndax terale mu la woon jox la xam-xam loo jëfe ci xam-xam boobe mu ne seetal keroog sa kersa gi keroog sa gàcce gi seetlu ko muy lim xewal lim la xéwale lépp bu ci nekk ngay nangu ne defal na la ko kay te bépp santaane bu mu la santoon nga nangu ne sàggane woon nga ko soo weddee kat sa cër yi ci seen bopp ñooy wax ñu kàrte sa gémmiñ cër bu ci nekk mooy wax la mu defoon ba nga di xuloog ñoom cër yépp ñooy nett li jëf yi boo leen ñaan yàllaa jéppi leen ne leen mu ne yéen de li ma doon def lépp seen intérêt taxoon ma di ko def ñu ne ko waaw waaye defuloo ko woon ci sa ndigal borom defuloo ko woon ci dëgg tanoon dañ nga wax loo rek yàlla ku mu wax loo nga wax ndax keroog sutura am na sidna Umar nee na laaj naa yonente bi sallallahu alayhi ndax suturaam na ko mu ne waaw waaw da nga gis moykat boo xam ne suñu borom dana ko jege ba xable xawam loxoom teg ci mbaggam ne ko ndax defula woon nangam ca suuf kenn du ko dégg lu dul moom moom mu ne ko axakaay ndax defula woon nangam mu ne axakaay mu ne ko na ma la suturaale woon ci àdduna ba kenn yëgu ko baal naa la ko fii bu nu weesoo loolu ñu dal di jéem a dugg bon kon ci mbirum tasawuf waxoon naa ne tasawuf laaj na tamhiid lan mooy tasawuf waxoon naa ne diine ñetti xaaj la al iman wal islam wal ihsan ngëm gi nga xam ne ci sa xol la nekk nga wax ko ci sa lamiñ nangu gi nga nangoo attey lislaam di daw ci yow ngay julli di woor di aj boo dee ñu di la sang di la sang di la suul ci bàmmeeli jullit ñi di jeganal sa bàmmeel daañu ko defalub jullit ma waxoon ne loolu rek taxula mucc ndax jëf yooyu yëpp mën nga koy jëf te sellal ci biir xol àndu ca te jëf ju sellul ngir yàlla yàlla du ko nangu. ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si réew mi wala si bit réew da ngeen di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a jot moo leen vidéo ko ngir mën a xam li nga xam